xaalis nag da ciy baax dee leen maye. Mbaye Diop. Mbaye Diop waaw taxalal. Mbaye ñu ngi lay nuyu quoi. waaw maa ngi sant yàlla ginnaaw ma sant yàlla julli si. Mbaye Diop nga tudd wala safara nga tudd ci làmb. Mbaye Diop alliance safara euh, maa ngi ginnaaw ma sant yàlla julli si bi. xoolal waa Géeja waaye ñu ngi nii. maa ngi sant sama papa di sant sama yaay di mu àndal di ñaanal Modou yàlla suñu borom yokk taxawaayam. parce que ñaari ndaanaan la boole. Mhm. ku xam Mbaye Diop Alliance Safara xam mbeng mbooro xam na ay adversaire la duñu bàyyi duñu accu mais nag mbeng mbooro dama koy xamal nag ah. ji day yomb mbeng mbooro nax na boppam parce que combat bi combat gañ jël la de hmm. du lu may asaaloo asa bombe te li ma soxla dama koy jël li ma muum dama koy jëli à ma façon à ma hmm. mbeng mbooro fu mu taxaw dinaa ko loo fay fekk lu ma faf non ak li ma liggéey hmm. ku xam bay joo xam safara ñu may caméra xam nañ wallaay làmb yi fi gën a métti fii maa ko moom hmm. mengu mbooro foo taxaw dinaa la fekk ni nga ko waxee nii noonu nga koy defee yàlla xam na loolu yow safara ngay waxal dem alliance bay joo hmm. man j'ai rien naa peur man li ma soxla du lii kii moo gën a ndaw si duma bëree mu taxal foofu sa baaraam ñu ngi lay siyaar <laughs> Baye Fall <laughs> xoola waa caaro yi waa caaro yi <laughs>

déet waaye avance am nga lekk de foo taxaw dala fay fekk la la wax. lan moo tax lan moo tax amoo lay wax ak moom. moom ba tey moom moo ngi wax ñu làmb ji ñaata suuna si des. dimanche la de bi di ñëw. samedi samedi bi di ñëw. samedi suba moom. su bis ba jëf moo ci des. lu waay jëf yaa ko moom. moo dégg nga li mu la wax moom. nee foo taxaw dina la fekk dina ko jël añ sax bu jotee man bu ma lekk ceeb yàlla xam ci pot laay tànk bu nekk ma jox la li ma jox nga maas mm-hmm. kii li muy wax nii amul làmb moo ñu fi indi signature dañuy wax. Mm-hmm. moom xam na ne am na combat Mbengue Mboro la gën a xam ne ki muy tajeel. Mm-hmm, waxal. bu lu bu la 17 décembre moom ay mbokkam dinañ ne non xamuñ ne woon nii lay ci série de victoire yu bëri la toog macha allah. man ci lan laa toog. maa la xam Ahmed Lac Rose nga mujjee bëreel yéen ñaar ñëpp. yéen ñaar ñëpp ameen ngeen mujjee daan. ginnaaw loolu ah. woote waaleel. na gaay teew. parce que lamb ji man soxla ma ci dara mbooloo laa ci soxla parce que kii. mbooloo a ci moom quoi xam nga comme d'habitude du woo Mbaye Diop sama turandoo. Ah. Mhm. sëñ Modou Diop paam euh, suñu xam nga di woo Assou Dieye sama mag ma bokkal papa mu ngi doog a jóge kaaw xam nga doo ko teew xam nga gisanteeguñ mais su maa ngi lay woo ci combat bi xam nga. di woo waa Géejawaay di woo Daouda Mbaw Daouda l'international footballeur maa koy woo mhm. xam nga di woo Tafa Dia dafa ndànk lii bëri da ngeen may fii di woo Tafa Dia borom Angleterre waaw Tafa Dia borom Angleterre maa ngi lay woo ci combat xam nga di woo tund da may déglu de ñun grand combat la ñuy de xam naa loolu dañoo bëgg a promoteur bi. waaw ca bisimilah parce que ñu ñuy woo ñoo ñuy taxaw. eh bu ñu fontoo wooteel booy. di woo euh, euh, comment dirais borom Touba sama kuréel ak yow xalaat ko xalaat ko xalaat ko xalaat ko. ayca pare bi waaw na na woote en attendant pare bi ñëw. woote wu de dafa wax ba pare soo ko. booy mënul bàyyi sa pandi pandi

ku nekk ak li nga yaakaar man li ma ki ma gëm yaakaar ko mu gënal ma ndey ak baay te saa yi ma ko wooyee mu ñëw dama koy woo déggulu ma la kii du man yéen yéen a xamul rek mais ménga moroom mi xam na yàlla xam na loolu baax na dafa kese maa ngi koy kuy du may japaat aa waa Seni Bees non non sax waa Corniche Sëñ Modou waa garage Dakar xam nga waa garage daar waa corniche sëñ Modou sama kër papa maa leen di woo ñoom Sène Ndiaye ñoom Cungoole xam nga ak ñoom Salibou eh, Pape Matar xam nga gars yëpp maa ngi leen di woo ñu tee si combat bi damay daal waa daal barke yàlla dama lay daal te xamul ne man ay sëñ Fallou kese lay àndal ñun ay taalibe sëñ Fallou lañ yaa may dégg kii moom lan moo ko fi bàyyi bis baa ko fi bàyyi lii la am si làmb ji wër di wax ndax xam nañ ñu mhm. di wax tamit bu ñu tuddee drapeau bi ñun ay ndaw lañ mu ñëw jàppale ñu ñun dañoo ñàkk jàppale billaahi wallaahi kii maanaam moom nekkul ay waxaat de maanaam ay woote pour ñu jàppale ma te yàlla tax muy tund jàmm gën bet caarooy bi na ma ñëpp ñëw jàppale te yàlla tax ñu xam ne lii nii sama sànni tàcc la xam nga téye dee yow yaay carte mhm. kan carte ndax yow da ngay def carte ay GG yooyu doo carte da ngay carte carte kat yi nag laay waxal nga yëngal ba dese benn six kii la dama koy yëngal doo ko muy six si kàttanu borom bi pare bi kaay na pare bi ñëw nii may woo waa caaro yëpp maa leen woo na ñëpp génn ñëw wuy si ma waa jàmm gën ñëpp maa woo génn ñëw wuy si ma waa bi ma xay lelo gaaw tago sama papa Biram Diouf lamb ji dama la woo mu doon sa lamb mu dof mi toog mu dof borom fali dama ko woo. yaa ngi dégg man pour laa dëkk képp kuy séeréer morolaa maa lay si lamb ji bépp séeréer morolaa di woo sama papa Biram Diouf lamb ji sa lamb la woon. waxal na ko tey sëñ Habib si sëñ Mansour maa koy woo soxna Fatick maam Abdou Aziz di woo sëñ Cheikhouna seexu sëñ Omar di woo sëñ Omar tamit mun kii mënul taxaw wax une heure de temps yéen bëgg ma waxal man deux minutes taxaw leen ma sën wala bu ma leen samay mbokk wuy si ma bisu lamb ji Modou Baye Fall la maa fay te damaa gis teraanga ko ba war a fay moom xam na loolu wala bëggoo leen man ma waxal samay mbokk mais bëggoo ma waxal samay mbokk bis si